cher jentenu Enquête 221 dal jàmm dal jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook réew mi quotidien bi dalal Macky Sall mi nga xamante ni dafa mer ba futtu ci école bi nga xamante nii mu ngi dëkk ci fitna suba ngoon guddeeg bëccëg Macky Sall ci biir yéenekaay bi di xamle ni léegi nag dafa doy école bi du arène nationale tam ko jóg nag li ni mel na jeex tàkk ci biir école yii xoolal ma ci biir université rek am na ci benn étudiant ngeen jël leen leen ràpp ci kaso bii lii moo fi nekk direct ci faux marchand ambulant yi nga xamante ni ñoo ci autoroute à péage bii bi def ci ay révélation yu rëy na ñoom te dañuy mel ni ay ambulant ci kaw tali bii yéen bi di nettali faux ambulant yi naka la agressé borom oto yi ci kaw autoroute à péage bii ne xoolal bu ñu yegsee de dañ lay fëgg di la saagay ndey ba sa xol bi daal di dagg soo bee vitre bi ñu daal di dugal

a Baldé en tout cas Kounkandé moom wàccee na démb réew mi gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddu ne xaratuma géej gii ndax fitna laay bañ ci réew mi yéen kaay bi nga xamal ne ci réseaux sociaux yi Kounkandé mi amul luñ ko yekkul te bu moytuwul nag fii lay jaaree fay abadan source a moom ubbi xët bi yaatu jagle ko wàllu politique ne gis nga Abdoulaye Diouf Sarr mii bu yeboo ñu xaar ko ci élection locale yi ndaxte mu ngi def réunion secrète suba ngoon gu dégg ba tey te kenn yëgul yéen kaay bi dee soit ci réunion yi nga xamante ni Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi koy def ne Abdoulaye Diouf Sarr mii mu ngi armé wu comme chef de guerre xoola ci jeudi bii rek am na benn réunion secrète bu mu war a def moom ak ay militant lépp ngir waajal élection locale yi vox populi diine tirage au sort bii def nañ ko niki démb Sénégal mujjee génn ci poule B bi yéenekaay bi desuwaat ci poule Sénégal gi ne léegi nag fi toll nii ñun ci des poule bi neex na lool Sénégal war a njëkk a Zimbabwe le janvier 2022 yéenekaay bi yëmul foofu ndax da mu ngi xamal ne laaj juude moo mujjee toj cérémonie ba tey xamal kàngam yi nekk ci sport bii ne gis nga CAN bii favori bi moo di Sénégal te nag bii du dem fenn fudul Sénégal février bii may gu njëkk ga tolloog 3 millions de francs CFA dañ ko mujjee sàcc sàcckat yi yemuñ foofu ndaxte am na beneen xaalis boo xamante ne ëpp na 200 000 francs noonu lañ ko sàccee yóbbaale ko jërëkaay bi dañu xamal ne lépp nag ci benn guddi la xew ci mariage bii man may laajte rek mbaa marié bi ci boppam moom mujjuñ ko sàcc yóbbu ci Sénégal buñ jógee ci léeg ak dem ci lee yan nañ yàlla jéggal ñu ngi bàlu àq ñépp ci tamxarit bi bal leen yann yàlla boole bal yàlla def at mi atum sutura jàmm xéewal